tan si xaritam Suks mhm. ah, ñoom xoni begs ah, di bég ci ñoom bu baax a baax a baax di kontaan tamit si Faru ah, Antigas mhm. ñoom Pa Adu ñoom Jooj ñoom Bamba ñoom Keba di kontaan si ñoom yëpp mhm. ñoom Touré Ning ak yaayam moom Anti Fatou di kontaan si moom bu baax a baax request bi nag mu ngi jógee si ay di konten si mom waaw waaye man nag man dama bëgg a may sa team bi request Ibrahima waa di pipeline parce que tey moom tooj bi waaw tooj bi ñu ngi door di play sax fu mu nekk kan, nii five o'clock gars <laughs> ah, yi si lañ door te may wax nak nag Ibrahima maam so paree nga damp tànkay parce que bu jógee koo fii rek dafaa dem play suba waaw am nañ kenn si line bi hello hello Kole hello hello hello hello na nga def maa ngi def Jamarek. rek wala ma doon ñaan dédicace waaw yaa ci biir man ko Wow. suma jabar mhm. Fatou si waaw di ko may ku fi Espagne Catalonia aha maa ngi koy bigee waaw jërëjëf ñu delloo la njukkal di ko bigee yëpp kontaan neen lain ngi di Holland, fii Spain Espagne bu baax. foo ñoo koole ni. maa ngi di koole Espagne. Mhm. France wow, naka waa France. Espagne Espagne. oh hmm. Spain ok. naka foofu bëggee waa San Pedro waa Ventadio waa Girona yëpp maa ngi leen koy bëggee. waaw jërëjëf. tur bu baax bi. ko bëggee Modou képp ku yeewoo Catalonia daal su ma limee jiw. ok jërëjëf yow tur bi. maa ngi tudd Ousmane Cissé. Ousmane jërëjëf kontaan nañ si yow nga nuyu ñu waa Spain yëpp di leen ñaanal ngeen nekk fa si jàmm ak wér. waaw jërë ngeen jëf. waaw i loolu nee na. waaw neex na neex na trop trop di bëgg ci waa Spain yëpp di kontaan si ñoom bu baax a ah, baax a baax. di kontaan si waa Madrid yi tamit di bëgg ci ñoom bu baax a baax a baax. di nuyu képp Gambien bu nekk ci biti Ramatulaay ñu baax lañ. Mm-hmm. Ah, waaw ñëpp seen xel baa ngi si Gambia. waaw euh, Gambia daal moom euh, fu dem rek. Mhm. dañ dee fàttaliku euh, kir mhm. mooy mooy lii rek waa ji ni koolee noonu mhm. Ibrahima. di ko wax ne jërëjëf di leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm ak wér foofu noonu li ñoo ut yàlla mel leen ko foog na am nañ keneen si line bi hello hello waaw yaakaar naa ne kooku dem na waaw kooku dem ah, na mun di nekk rek si aduna mhm. bi ii ah, ñu leen a ñaanal rek liggéey yi dem uti foofu noonu yàlla mel si kaw jàmma mhm. ñu dellu si ñëw développement bi gën a neex mhm. mu gën a gaaw incha ah, def damar damatu lay dafa nduroo dañu am beneen kola si line bi allo kola allo kola man mi laa soxla kan Ibrahima allo naa de maa nii rek kooku la Damatulaay naam man la Maymuna. Maymuna na nga def. Ang fi. Sino loo ne nag. maa ngi toog. ana añ bi. maa ngi toog di seetaan. ma ana añ bi. añ bi mom kay passé na xanaa ñu xaar reer. waaye indil jogonaal jogonaal 5 ba 6 la. man pol la ni yow. Pol di ndé caali de yaangi bu ga a caali. bul nangu Ibrahima di ñu reere. Mane eh, ana chaare. ah eh, mu ngi fahin. Ma dafu dara. Ya mu ngi okay. maa ngi ñaan request. Okay. maa ngi may suma xarit yi yëpp. ok ak suma doom yi Nene Ba. Mhm. ak Muhammad Ba. Mhm. ak Kajatu Ba. Mhm. ak Ibrahima Ba. ak suma jëkkër Samba Ba garanti trust. ñun donc fulɓe fo kura. <laughs> jërëjëf waay. jaaraama nani Maymuna. ok Maymuna ma track bu neex. naam. ah jiw falam. ah. <laughs> <laughs> mande o kama trak manda ko jiyono falama <laughs> eyi eh, ko on tigi mi <laughs> faala aha so ibrahima hmm? awa nani wo ko ɗum tigi o faala eyi eh. <laughs> magemay smatoma eh. ɗon mbi seynabu faal ok lame ok jërëjëf waay jërëjëf may jarama maymuna ok ok ah, ku baax la ah, waaw ku baax la moom mhm. ibrahima da fala mm -hmm. ah mm -hmm. music on oh? mm -hmm. mo wida on juo la eh, fala hey, hey, hey, so hey. Eh. wadu fere adana mo music on sabuna hey, eh, ka hey. hal <laughs> nga poli so len so len digé fop nga defat lolu problème a ramut len duñ def dara ñu dem suñu next video bi ah, suñu delu sire fan do dañ am benen kola ah, allo kola allo ni de mhm. nanga tudd ak fay kole may kole talen sire ok nanga tudd sire sire sire sirending lah anda sireba <laughs> sireba sireba sireba oke okay, sire yang cibir mana yang cibir mako ma es ya, balla cuma balde pernah parasali oke okay. at bindu kamara aiso mhm diko es suma uncle at suma bobu naw baburo diko may kaw sire oke okay. oke iwe hekatum labure lan hekatum mas Lan? tay hekatum mas Lagi ban aku. oke mas. dafa am kamu togn <laughs> Ah, di kontaan si moom Sira mu ne Sira Bala ah di kontaan si moom bu baax a ah, baax a baax dama dama foog ne Siranding la ama ah, salula mas bi am mm. na ko a waa mas hmm? waaye nag Siranding xam naa ne nañ la ko playal si kanam incha allah mhm. Ibrahima jéemal a lijanti ñaari tra waaw duñ def dara xam naa confort confort dina def loolu moo faatu moo waaye duñ def dara dañoo dem ak next vidéo bi suñu dellu see ñu continuer shit, check it. yo, what's up, man? Now don't you wanna talk, man? You hot, man? You steaming like a volcano, and that I can handle. I need the old candles. You bring the roof down. You're riding with the truth now. Get a spokesman. You know the get a loving. I give it to a dope man. You know, man. Know what a folk can. I'm on my cold stand. And when you smile, you make it killing like the basket. Get at me like a referee. I'm fresh beat, the swag on it, understands. I be the man, I states fly like Peter Pan. Let me be your man. face. How could I make you cry, make a raver? I know deeper, my heart would quiver. I'll make you smile at any given time. Forget about the past, them other dudes made you sad. If that was me you had, you would have never been sad. I make you glad, even though love is a battlefield. I'm about the real, no need to nag. She said I need to quit making my pants sad. I go the wood You need to understand some things I do My nuts stick so my pants loose She laughed out, we sat down To have a cool day We don't need no Kool-Aid hey. beauty, man, I in a beauty. I say I in a beauty. She doesn't trust the man. I told her I'm a better man. You can trust the man. Mama got better plans, better plans. Let me show you then the better plans. Let me show you then. Nigga, don't have more money, more money. Nigga, they have more money, more money. Nigga, what have more money, more money. Nigga, they have more money, more money. Good spokesman, the spokesman. waaw waaw waaw ah, kooku mooy Vipa ak na ah, di kontaan si ñoom bu baax a baax mu ne amoore. Hmm? xanaa loolu Spanish word la. Ah.